Euh, loi bi li nga xamante ne moo jëm ci wàllu viol kooku moom ñëpp xam nañ ne ñëpp koy ñaaw ñëpp koy ñaaw nekk na loo xam lu ñaaw la ndax dama jàpp ne peine bi lu ñu leen teg rek tuuti na 10 ans à 20 ans yi sax mënoon na ko war a mën a romb ndax képp ko def dañ ko war a rey su fekkoon réew bi day dox ci lislaam euh, euh, monsieur le ministre li ma jaaxal rek mooy loi bi modifié nañ ko lu mat ñetti yoon ba ñeenti yoon am loo xamante ne tey na suñu xel ndax da ngeen a jël lu baax jël lu salte làq ko ci ginnaaw loo xamante ne nii ndax bi nga ñu njëkkee indil yaa ngi ñu indiloon article 319 sans préjudice des peines plus graves prévues par les articles 320 et 321 du présent code sera puni d'un emprisonnement 2 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million ki Quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu, un individu de son sexe loolu dañu indi loolu coow li bari nga arrière jëlaat bi sànni indi bi bi nga génnee bii ba tey léegi ndax bi nga ñëwee da ngaa tëb

nga wax ne euh, article yi nga xamante ne mooy article 319 da nga wax fii ne supprimer la waaye bi nga ñëwaatee ci ginnaaw da ngaa delloo xam ne les alinéas article 1 et 2 de l' article concernant respectivement l'attentat à la pluie de sans violence sur mineur de 13 ans et celui commis par un ascendant sur un individu âgé de plus de 13 ans pris en compte par d'autres dispositions ñu jàpp ne li ngay wax ci 319 dara leeru ca 319 xam nañu ne tey jii boo demee ba nga xamante ne da nga war a sanctionné jàpp naa ne viol metti na bon na lool ba fu bon di àgg waaye itamit góor jigéen moo gën a bon un an à un an à cinq ans dañu bëgg ñu yóbbu ko dix ans à vingt ans mu gën a saf comme ni lee safe loolu mooy suñu bëgg-bëgg ndax dañu gis ne comme dañu jóg pour bëgg loo xamante ni nii luy defar askan wi la jàpp naa loolu mooy yées fopp ca pour liggéeyal askan wi jàpp naa loolu moo ci jiitu ba tax na kon monsieur le président li ñuy ñaan mooy ñu xoolaat dossier bi li nga xam ne mooy article 319 suñu demee ba di ko laal ñu xool nan la ñuy sanctionné dëgg-dëgg ñi nga xamante ñooy borom ñaari tur yi ca bañ koo cos cos googu ngeen di ko cos lañ bëggul dañu bëgg ñu sanctionné leen sanction boo xam ne day metti ba mel ni ku violé wala baabu mu metti ba nga xamante ne mooy romb ku violé ndax ñëpp xam nañ ne boobu yées fopp moom suñu borom gën a bañ Sénégal yi boobu lañ gën a bañ ndax xam nañ ne mooy yées jërë ngeen jëf. le président Mbacké article 71 moom nga invoqué alinéa 1 boo ko liree ba dernière ligne bi daf lay renvoyer article 68 alinéa 8 et 9 donc appel au règlement bokkul ak question préalable bokkul ak motion préjudicielle mais bàyyi laa na nga wax cinq minutes yi nga xam ne am nga ci droit pour bañ polémique rek. bu la neexee président bu la neexee voilà bu la neexee rek pour beneen yoon. non non non beneen yoon. partie voilà soixante article soixante quatre. non appel au règlement. waaw appel au règlement article bi dafa wax ne quand un député invoque l' appel au règlement il doit en indiquer la disposition et ne pas sortir du sujet en discussion pour éviter. que l'appel au règlement ne soit une intervention. non xam nga intervention non non président génn ma sujet bi. mais disposition bi nga fàtte bala ngay dugg ci sujet bi président Mbacké. président mi ngi ci biir génn ma. waaw xool ci biir. non non non je suis désolé. non mais même. c'est moi qui préside c'est vous qui présidez. préside c'est vous. mais boo dee présidé ah, bañ. j'aurais pu vous arrêter dès le début de votre intervention parce que article 71 bokkut ak 74 bokkut ak 75 mais par respect pour bañ coow bañ difficulté mu bàyyi la wax ba sa temps pare mu fàttali leen nag ne boo liiree article la parole est accordée pour cinq minutes au plus. par priorité sur la question principale et immédiatement après l'intervention en cours à tout député qui le demande pour un rappel au règlement dont il faut préciser la disposition da nga ko fàtte donc disposition bi dugaloo ko dugaloo ko boo ko dugalul bon la suite n'a plus lieu d'être donc dugaloo ko parce que waxuloo ko gis nga président président man mënoon naa la arrêté dès le départ mais man dama respecté député yi mais mënoon naa la arrêté dès le départ c'est article 68 alinéa 8 et 9. kon am naa droit saa su ma neexee li ma yoon may ma jël ko monsieur le président li ma waxoon rek moom laay wax amuñu problème ak jigéen parce que viol pédophilie yooyu yëpp bu ñu ma mënoon a rey sax nañ leen rey ñu ko def ñun amuñu problème yooyu mais lan mooy problème président dafa am lu jaral leeral. wax naa leen ko waxaat leen ko bi ñu indil 319 article 319 article 319 dafa wax ci affaire borom ñaari tur yi wax ne ku ko def dañ ko war a tëj un an à cinq ans ñoom bi ñu ñëwee ñoom indi ko ba pare ñu gis ko ci rapport bi ñu xam ne day indi coow ñu jël rapport bi denc mais bi ñu indiwaat seen amendement bi waxaat ngeen ci ne 319 ca da ngeen a waxoon ne supprimer ngeen ko ci biir loi bi kon ba gis nañu ne am na lu leerul. ndax man jàpp naa ne ñu demee ba nga xamante ne dañuy daan war nañoo daan li nga xam ñooy def borom ñaari tur yi su fekkee nag daa am lu nekk ci seen ginnaaw ba ngeen ragal ba tax ñu leen leen a daan vraiment di wax ay 1 a 5 ans ñun jàpp nañ loolu dafa tuuti ndax jàpp nañ ne ñoom dañ leen a war a daan li ñuy daan maanaam ñoo xam dañoo viol dañoo def viol wala ñu def pédophile comme dugg ngeen ci article 319 askan wi loolu la ñuy xaar ci yéen. mais askan wi de xaar ci loolu ci yéen ngeen ñëw jël jigéen ñi teg ko ci kaw nëbbutu waa fi nga xamante ne fa la askan wa doon gën a xaar muy article 319 foofu la askan bi doon gën a xaar parce que aussi lii bëgg nañ ko lool waaye nag ñooñu tey war nañoo jël ay daan yu mag teg ko ci seen kaw ba ëllëg si biir képp koo xamante ne nii maanaam ab Sénégal yi sa xel wala xalaat du xalaatati ngay defati lu mel noonu comme ñi nga xamante ne ki nga xamante ne mi ngi a def viol wala pédophilie tiit ba nga xam du ñemetee def lu mel waaye su fekkee da ngeen a ñëw tey euh, monsieur le ministre indil ñu bii coow li bari tey mu ñëwaat léegi indilaat ñu ba ne amendement boo xam ne 319 dugal nee na supprimer ko waaye dugalaat na ko ci biir ñu bëgg nag li ngeen fi dugal dëgg-dëgg ñu xam ñaata la lu ngeen li ngeen fi dugal lan la ndax li ñu bëgg xam ne dëgg-dëgg mooy peen ba ndax da ngeen koo yokk wala da ngeen koo bàyyi la nga xam ne moo fa nekkoon démb ak ki démb loolu lañ bëgg xam dëgg-dëgg ngeen wax ndax it nag Sénégal yi bëgg nañu ñu yokk ko yokk bu wér loolu nag bu mënul am li ñuy séntu ci yéen mooy ngeen jël dossier bi ñu def assournement débat bi xalaataat ci xoolaat ci ngeen laaj askan bi su ko defee ñu boolewaale ko ci su defee ñu boolewaale ko ci lii nga xam ne njariñu askan bi la ñu boolewaale ko ci ndax leet njariñu askan bi la waaye bëgg a yëkkati fii neexalee ko jigéen ñi yëkkati fii nëppee ko li nga xam ne moom ngeen bëgg a def ci suuf loolu la ñu àndul ndax ñun ay jullit lañu ca bàyyi nañu xel ëllëg suñu diggante ak suñu borom. jigéen ñi bu ñu sañoon seen i mbir cent pour lay doon mais nag la ci ginnaaw loolu ñun moo ñu metti ndax dafa am luñ làq ci ginnaaw luñ waxul dañuy jël lépp wane ko rek su ko defee nit ñu nekk si loolu di coow ba du ñu gis la nekk ca ginnaaw article 319 la ñu bëgg ñun ñu xoolaat ko ni ñu koy xoolaatee mooy nañ ñu daan nañ leen daan comme ni ñu daan ku vieux ku def yow pourquoi pas. mais ne léegi jëlee nañ ko ci. 21 euh, euh, ans pour xale bi léegi day wàcc si ba 18 ans. wala 13 ans. non mais nañu daan man mi nga xamante ne da koo def de 10 à 20 ans ñun loolu lañuy ñuy séentu ci yéen ñu bëgg nag affaire yi ngeen bañ koo jël rek mbubbale ko jigéen ñi ba tax ñu bari buñ gis li nekk ci ci biir mbir mi ndax nag wax naa ni fii ah maam Abdoul Aziz de waxoon na ne kenn ku ci nekk fii waxoon na Abdoul Aziz Ndaw ne ko. assemblée nationale boobee ngeen nekk li ngeen fay voté bu yomal xaamee danañ leen ko laaj bu dee dëgg danañ leen ko laaj bu dul dëgg danañ leen ko laaj kon nag bëgg jël jigéen ñi mbubboo ko ngir politiquement ba nëbb li nekk ci ginnaaw ñun rafetluwuñ ko ba tax na ñu ngi ñaan ñu def assourdiment débat bi pour ñu xoolaat dossier bi jox ko askan bi askan bi xool 319 ci bëgg ñu defal leen te lañ ci bëgg ñu boole ko ak li nga xam ne moom la jigéen ñi bëgg ñu def ko su ko defee jàmm ni ñooy le président merci beaucoup monsieur le président dama yaakaar ne sama collègue bi dafa jot nañ ñu euh, distribuer gouvernement jottale nañu amendement yi nga xam ni moom la yaakaar te yaakaar naa ni su xoolee ci amendement numéro 2 bind nañ ni l'article 319 est supprimé comme ni mu ko waxee ñu dem ci article ci amendement numéro 3 ñu ni article 3 modifié alinéa article 319 alinéa 1 et 2 est supprimé et sont abrogés ça veut dire que ci code pénal tey su texte bi génnee ñu génnewaat code pénal article 319 alinéa 1 ak 2 dootu ci nekkati parce que la ci lam doon undu dugg na ci li ñuy dox tey mooy benn ñaareel ba 319 bi nga xam ne dugaloon nañ ko te di commission technique suñu ay collègues doon ko wax ne amul lu mu fi doon def parce que bokkul ci li nga xam ne moo tax ñuy voté loi bi ñoom dañu wax ne ci euh, amendement numéro 2 nee nañ article 319 bi génnee nañ ko ci ban foog naa ne wax jooju tey du wax ci wax ji mooy criminalisation viol ak pédophilie mooy discussion bi dama demande ñu continuer discussion monsieur le président remercie. La parole est à Madame le rapporteur. jërëjëf monsieur le président d'abord monsieur le président dañ lay sant di la gërëm parce que jàpp nañ ni dangaa bëgg jàmm ak dangaa bëgg vraiment ñu débattre ci jàmm ak salaam moo tax sax nga bàyyi président mu mu wax waaye ñépp xam nañ ni tey bés bi màgg na màgg goo xam ni solonel na solonel goo xam ni vraiment débat politico-politicien xaju fi article 319 ak article 319 bis wute na bii day wax homosexualité mooy diggante góor ak góor bii di wax viol diggante góor ak jigéen ak pédophilie mooy xale yi ñuy yëkkataan mais dafa fekk ni bu xam-xam gàttee wala ñu lay dicté parfois nga daanu ci erreur monsieur le président ce jour est tellement solennel waaye ñun femmes yi fi nekk association femmes yi am ay avocats am ay magistrats maîtriser le droit foog naa bu amoon lu lëndëm ñoom ñoo koy njëkk a contesté foog naa ñun ñu fi nekk lu mu bon bon nekk ay jigéen jàng nañ bu amoon lenn lu ci lëndëm ñun ñoo koy njëkk a contesté mais ngir yàlla ce débat est solennel et historique nañ wax lu sérieux wax lu jëmale Sénégal kan koo politiser bu ngeen amul lu ngeen wax génn leen salle bi ñun jigéen ñi am nañ lu ñu wax président qu'on continue le débat lay sant di la gërëm. am na liberté am idée proposer ko mais yoon dafa tëral mu ngi nii c'est la loi organique mu ngi nii nee bu député bi paree comme matière bi ñuy discuter commission ba am na président ñu jox ko ko mu tontu. am na rapporteur ñu jox ko après ñu jox gouvernement bi après ñu joxaat ko bu paree nag mu wote tu wote mooy démocratie léegi nag li ma leen di laaj ni ko yoon tëralee moo di ñan ñoo ànd ci li député bi wax waaw compte leen seet bu baax de seet leen seet leen bu baax gis ngeen ba pare ñan ñoo contre li député bi wax seet leen bu baax de waa seet rek li yoon doxal loolu laa loolu laa indi bu nag motion motion bi c'est rejeté xanaa lii kañ amatul coow ñi war wax yëpp wax nañu ñu wote ñu ne rejeté nañ ko waaye waaye nañu continuer waxtaan bi waaye